ñooy ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñaan ñu yàlla boole ci ñooñu muy dugg ci alquran
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu ak ñu ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala num nu dajalee ci keppaaram gi yal na nu yàlla dajale noonu ci aljanna firdaws di jiital ci nuyoo bi sunu waajur bi ñu fi fekk si ci kër gi ak njaboot gi mu àndal yépp di am mbégte ak kontaante trop fekk fii sama rakk bi sama mbokk bi sama doomu ndey bi muy Mouhamed kii bi ma ko xamee ak léegi yaakaar naa ne war na mat fanweeri at su ma juumulee ah waaw yaakaar naa ne loolu war nay tolloog ay atam mais alhamdulillah bi ma koy xam boobu mu ngi nekk ndongo daara di jàng dama tukkeegul ba yàlla def mu dem tukki mais boobu ak léegi yëpp moom ak yenn aleykum salaam wa rahmatulah moom ak yenn doomu ndeyam yu mu fa nekkal ku mel ne Jibril Guèye ku mel ne Ibrahim Guèye ñun dañ leen di bëggee waaw dañ leen di bëggee fu ñu toll ndax su ab jullit jógee Sénégal dem ba France nekk fa imam loolu rëy na de mën ngaa nekk sax Sénégal doo fa nekk imam waaye nga jóge fi dem ba ci tubaab ya ñu tabax fa jumaa nga leen di jiite loolu loolu lu rëy la ñaata sénégalais ngeen xam yoo xam ne bi ngeen leen xamee bi ñu jógee Sénégal dem tukki dugg Europe ña ci doon jullit dañoo soppi seeni tur nekk ay yéeféer ña ca nga xam ne ay jullit lañ nekk ay bandi ay saay-saay buñ fiy ñëwaat lu nekk lañ leen di indil ci ay doom yoo xam ne amu amuñu ay ndey wala dañu leen di for ci mbedd yi ñaata ngeen ci xam ak ñi nga xam ne bu ngeen doon biñ doon dem islam lañ yóbbu waaye bi ñuy ñëwaat ay yéeféer lañ ñaata ngeen xam loolu ci ay doomi jullit ñiy jóge fi am diine dem Europe yokk seen diine ba tubaab yi yéem leen def leen ay imam moom mii ci la bokk yal na yàlla saxal ko ngi ñaan yàlla yàlla saxal ko ci loolu yàlla bëril ñu mel ni moom beneen bi mooy sunu mbokk bi di soxna Mariam moom tamit kazalik buñ koy xam ak léegi yaakaar naa moom tamit mën na loolu de ci nangami at yooyu moo waxoon sànq moom ak soxna Aïcha ak yeneen i mbokkam liñ lañ ko xamee mooy organiser diine kër gi saa yi ma fi ñëwee rek diine moomu fi indi kër gi saa yi ma fi ñëwee rek diine moomu fi indi waxtaan yu mel nii moomu fi indi loolu tey sag la ci jigéen boo xam ne day toog ba ci yàgg mu organiser lu mel ni woo ay mbokk jullitam yu jigéen mu ne leen ñëw leen ñu def fàttaliku yàlla loolu xéewal bu rëy la mbokk yi yal na yàlla fay leen lii yal na yàlla def ko fi misaani xasanaatihim yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim ñoo ngi jéem a fàttalante ci benn tomb rek muy waqafaat maa suuratu takaasur ay taxawaay yu ñu war a taxaw seetlu jàngat saar bii di alxakumu takaasur bokk jullit yi góor ak jigéen li tax tey alquran ñun mënuñu ko jëriñoo mënuñu jëriñoo sunu diine mooy li ñu yàlla jox muy alquran dañ ci bàyyiwul xel bàyyiwuñ ci yitte lu tax ndax téere bi dañ ko ba wàccewul palaasam biñ ko war a wàccee téere barkeelu lañ ko def téere boo xam ne balaa xel di ci dem rek li ëpp ci ñun balaa seen xel dem ci alquran tiitaange am wala naqar am walla bëgg dara bëgg dara am rek ñu ne waa ji jàngal alquran wala jàngalul alquran su nit toogee ba ne am naqar lu mel ne dëj jàngalu alquran lu mu ciy jëlee du am tiyaaba su nit ragalee misaal dañ koy audité wala ragal kër gi muy waaj a dëkk ay jinneeg ay nangamaki nangamaki seytaan mu ne xaaral ma jàng fa alquran wala nit ku feebar bëgg a wér ñu ne ko dama nga jàng lu ju alxuraan dama nga jàng jàng alxuraan dama nga jàng saar nangam wala nga takk aaya nangam wala nga naan na aaya nangam wala nga sangoo aaya nangam loolu dong léegi moo ñuy yóbbu ci alxuraan fekk téere bi yàlla bi mu koy wàccee daf ko wàcc pour ñu dund ko aw dundin la aw dundin gis nga lii ki ko defar tubaab bi defar lii bi mu ko defaree ba pare daf kaa booleeg benn këyit bu ñu naan catalogue ki ko jënd pour mu xam ñaari pis yi fan lañ koy dugal pis yi fi ñu koy dugal carte mémoire bi fan lañ koy dugal fan la photo bi nekk appareil bi ñaata giga la capacité bi mu am lépp ci këyit boobu la koy gis lan lay bañ nan lañ koy chargé boo bañee mu yàqu mu yàgg sa loxo kayit boobu ngay jàng boo ko jàngee ba maîtriser kayit bi rek allahu akbar appareil bi mën nga ko xam nga lépp mën nga lépp naka noonu alquran téere bii ñun ñi bi ñu yàlla sàkkee ba pare téere bii lañu booleel mooy suñu kataloog pour suñu dund jag foog ñu toppatoo téere bi suñu dund pour mu jag pour ñu xam li yàlla bëgg ñu xam ñun lan moo ñu fi indi ñu xam lan moo war a nekk suñu taxawaay foog ñu toppatoo téere bi léegi nag mbokk jullit yi ki ñu may appareil bi xamu ci dara xamul lan la moom daal lu mu ci xam mooy taal naa tàkk na léeg-léeg nga gis benn maire wala benn paa boo xam dañu ko may appareil benn doom moo nekk Europe yónnee ko ah kunde yàlla mi nel daa ma portable omo laba ah xoto hubbete daal di koy wan yónnee nañ ma benn portable portable bi fan lañ koy taalee ñu daal di koy wan ñu koy taalee ah léegi portable bi moom fan lay tàkkee ndeysaan ñu won ko niñ ci dugalee pis ñu won lépp dañ ko koy won xattaa ni doomam day jël portable bi dem aboneel ko daal di koy indil benn numéro waaye xamul numéro bi bu ko benn buñ ko woowee ne ko wala mu ñëw ci benn jotaay toog ñu ne ko waa maire wala góor gi yow luy sa numéro mu ne xaaral ma woo ndey ndey yow luy sama numéro mbokk yi kooku noonu portable bi est-ce que dina ko jëriñoo ci yeneen li nekk ci biir ci ay njëriñ est-ce que dina ko jëriñoo moom xam nga lan lay jëriñoo woo nañ ma wuyu naa ku ma bëgg a woo daal na ma woo moom xoolal portable bi ak ni mu gravé ak li ci nekk ci loo xam ne xoolal tey portable mun nga ci def kaamil Qur'an mën nga ci def nooy jàppee mën nga ci def nooy sangoo janaaba mën nga ci def lu nekk ci wàllu lislaam te yenn portable yi xoolal léegi nag maire boobu moom wala paa boobu wala kooku jàngul nga xam ne moom portable bi xam nga lu mu ci xam man de woo nañ mun nooy wuy naa pare naa fay naa ko dugal naa ko sama nafa wala sama poste toog xoolal li nekk ci portable du ko jëriñu loolu mooy alquran ñun ñi toog ñi ñëpp ñu néew ci ñun ñooy jëriñu alquran lu tax mooy xamuñu xamuñu xamuñu moo tax saar yi du def benn jeexital ci ñun dañuy wax benn namazij min taasiri salaf bi hadihi suura keet ñenn ci ay mag ay boroom xam-xam yu nga xam ne wees nañ seen jamono waaye ñoom xamoon nañ diine jàngoon nañ xamoon nañ alquran depuis fatiha ba suratu naas 114 saar yi lu leen fi romb xam nañ ko kenn ci ñoom ndeysaan mooy nettali mu ngi tudd Abu Bakr ibnu Iyad Abu Bakr ibnu Iyad nee na benn bis dama doon julli mu ne sallaytu xalfa Fudayl ibnu Iyad damaa julli ci ginnaaw kenn ci ñooñu ma wax nga xam ne xam nañu lépp ci alquran ku ci tëdd guddi di nelaw boo ko fëggoon ne ko aaya sàngam mu yeggali soo ko ne fan la wàcc mu wax la ko soo ko nee saar bi lan lay wax mu wax la ko kenn ci ñoom moo doon nettali nee na julli naa ci ginnaaw imam bu tudd fudayli ibnu iyad salaatul maghrib julli timis laa julli ci ginnaawam benn bis moom fudayli moomu nga xam ne moo doon jiite timis boobu nee na doomam ma ngi ca ginnaaw bu tudd ali ibnu fudayl doomam bu ndaw mu ngi ci ginnaaw sàppe yi di julli waaye imam bi nga xam ne mu ngi jiite tudd fudayl bi mu jàngee fatiha ba mu jeex ba mu jël saar bi ñu war a waxtaane tey muy suratu takasur alhaakumu takasur nee na fa lamma balaga ba mu jàngee aaya yi ba egg la tarawunna aljahim doomam bi ci ginnaaw dafa daanu yuuxu daal di xëm moom imam bi mënatul eggali aaya bi mu taxaw rek naan la tarawunna aljahim la tarawunna aljahim mënatul eggali timis bi doomam xam na moom mënatul eggali alquran bi lan moo xam loo xale bi parce que dafa dégg li yàlla wax xoola buur bu tal na yàlla ne giñ naa ci sama màggaay di ngeen jàkkaarloog safara loolu war na xam loo nit de giñ naa ci sama màggaay man yàlla lii ma leen wax safara taal naa ko moom mu tàkk te di ngeen jàkkaarloog moom waaye mbokk yi tey kenn ci ñun bu génnoon rek mu jàkkaarloog benn autorail bu am 200 vago di ñëw vago yëpp ngi fees delloo ki nit mu jékki-jékki rek gis vague autorail bi wàcc raay bi di dugg ci biir kër yi moom waajooju lan lay yëg ban tiitaange lay yëg moom waajooju na tiit wala du tiit bu jékki-jékkoon mu gis benn boyin bu jóge ci kaw asamaan si di daanu ci kaw ay immeuble mu ngi fees dalek nit immeuble baa ngi fees dalek nit muy daanu ci biir dëkk bi nit ki jàkkaarloog avion bi di daanu ci biir dëkk bi lan lay yëg xoolal yàlla moom ñaar yu gën a ragallu loolu la wax ñaar yi gën a ragallu gis otoraay bi di daanu ñaar bi gën a ragallu nga gis avion bi daanu yàlla nee na safara di ngeen ko gis ak seen bët moo tax xale bi xam ndax attanul loolu waaye imam bi ko doon jiite baayam mënatul eggali saar bi moom it ba mu jàngee aaya bi yàlla ne di ngeen jàkkaarloo ak safara wallahi mënatul eggali saar bi xoolal ñun saar boobu su nekk ñu dégg ko waaye du ñu yokk du ñu wàññi xamul tax parce que xamuñu bal sax yenn saa yi bu ñu demee ci jàkk yi di julli imam yi bu ñuy jàng alxuraan ngay gis paa yi nekk ginnaaw di fecc yenn saa yi nekk ilimaan mu ne wala daalin ngeen amin di fecc ci biir jumaa yi loolu mooy fecc bi wala du ngeen ko gis ñaata jàkk ngeen di loolu da ngay gis fi ay daayira daayira dimanche daayira dimanche xoolal aaya bi yàlla naan laa ilaha illa kalla kalla isa dukkatil ardu dak bis bu may mokkal suuf bis bu may mokkal suuf dama koy mokkal kalla isa dukkatil ardu dakkan dakka yàlla neen damay mokkal suuf ba ma mokk wa jaa rabbuk wal malakus mu ne yàlla ne wa ji a yoma bi nga gis ay nit toog di ko way wajaara booka wajaara di fecc xoolal aaya bi ni mu grave ay nit di ko fecc lu tax ñu koy fecc parce que xamuñu xamuñu li yàlla di wax xamuñu soo leen rombe ñuy fecc seeram day daw waa ñii allahu ak xam ngeen li ngeen di fecc xoolal yàlla ne wa wa ji a yowma isim bi jahannam keroog damay takk safara juróom-ñaar fukki junni seen seen bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka téye ci safara di bi foog ñoom ay nit di fecc lool kon ñooñu xamul ba moo tax alxuraan bi ñun duñ ci jëriñu Sénégal ah yal na nu yàlla sot waaye dina néew pour ñu jëriñu ci alxuraan parce que jànguñu alxuraan xamuñu mbokk yi saar bi muy suratu takaasur taxaw buñ ci war a njëkk a taxaw mooy hadihi sura zaatu iqa jalil rahib saar bi dafa fëgg dënn yi yëngal xel ye xol yi tiital leen ragal loo leen pour ñu bàyyi xel lan moo leen indi ci kaw suuf mi ngi mel ne benn waay buy waaraate wala muy xuppaate wala muy fàttali wala muy jubanti doomu aadama yi qaim ala sharafin aalin waa joo xam ne taxaw na ci tund bu kawe wala ci barab ma ngay yëkkati kàddoom ya ma ya mudd sawta ma ngay xëcc baatam mën na am sax dañ ko takkali rajo mën na am làmmiñam lay waxee ya siix ma ngay yuuxu moom waa ji lu koy yuuxuloo bi nawmil gaafiliin ci nelawuk nelawuk aji sàggan yi bi nawmil gaafiliin sàggankat yi nelawkat yi xoolal dëkk bi laa ilaha illallah ay waay mbokk yi xool leen Sénégal li ma waxoon barki démb juma mooy tey boo amee tuuti ci ngëm yàlla sa xol bi dootul féex ci naqar ngay xëy di yeewu suba ba ngoon Sénégal xool leen góor ñi xool leen jigéen ñi xool leen mag ñi xool leen ndaw yi xool leen dëkk bi seen diine yëpp lan la caaxaan diine Sénégal yëpp fo la ak fecc même suñu programme diine yi sax ñuy gaa yi di dem wallahi xam nga lu leen fa yóbbu fo lekk rek diine Sénégal yëpp mooy lekk lekk xool leen tabaski ku mën ku mënul fal force ah damay tabaski damay damay tabaski di ci xeex kay damay tam nga gis ku jigéen ki wallahi boo fi indiwul xar di nga xam ne man sama kër gii ah daa dem yoonam parce que indiwul xar parce que lekk bi waaw.
koor gi ndogu ko waaw xoolal xoolal korité kenn du woor da ngay gis ku woorul de waaye comme dañuy kori buñ ne weer feeñ na feeñul suba indi na pomme de terre am lekk rek xoolal ngénte yi lekk rek xoolal dëj yi dëj nit day dee ñu dajale 14 mbana wala 15 rangale ko ci koñ bi ah, nga gis jigéen ñi toilette ñu commencé waaw na dëj bi xumb de na neex lekk rek tam xarit lekk waaye bu fekkee ne dañu ne nag léegi jaamu yàlla waaw bu guddee na nga yeewu de bu guddee na nga yeewu 4 heures du matin nga naawe hihihi. loolu de yàlla loolu de yàlla mënu ma ko nag ah yéen seen diine bi metti na de jigéen dafa war a muuru ñu ne tàngaay bii ah jigéen warul meesu de jigéen warul xeesal de ah loolu de wax dëgg yàlla man mënu ma ko nag xoolal waaye bi lekk gi jotee kan ma wax ne mënu maa lekk. ñëpp a lekk dañuy lekk ba ñii ñaatu yax yi lekk bool bi nan yàlla yërëm sunu sunu diine foo rek woo tax waa ji di yuuxu bi nawmil xaafiliin maxmuuriin saadiriin ñi nga xam ne dañoo màndi ci àdduna dañoo màndi ci bànneexu àdduna xoolal nit ñi tey nit ñi màndee ci caaxaan foo xaw ma fii am na stade de waaye man boor bee ma nga xam ne stade la dañuy football ba 2 heures du matin pare di xeex ba 5 heures kenn du nelaw ci koñ ba jigéen bu génn ñu daggale nga yor jam la ku nangu yor portable ñu gor la jaasi xoolal banditisme bi xoolal col gu bon gi da ngay gis xale yu jigéen yi li ñuy sol di dugg ci stade bi billaahi wallahi bu la yàlla doon tàggu ci kaw su naan la ndax ma may la ci doomu jigéen nga ne ko doy na man kay bëggutuma am doom bu jigéen ci kaw suuf xam nga ne ngeen jàng alxuraan ñu ne arab yi dañ daan am doom bu jigéen di ko rey nga jaaxle mais billaahi toll nañ ci toll nañ ci doom bu jigéen boo ci amee ñett dootoo nelaw guddi am yeen maire yi surtout nag ñi ci amagul jëkkër surtout nag ñu amul diine encore ati dootoo nelaw guddi xoolal loolu xoolal gàcce googu da ngay gis ku ci gën a mën a sol lu bon ku ci gën a dangiiral gën ci di jaay maa ci gën a bon ndax xale bu jigéen di bàyyee ndeyam ak bàyyam dugg ci benn stade 10 heures du matin ba ba 2 heures du matin nekkoo sa petu sa yotu ndey toog fa loolu nu mu nekkee loolu di ban diine la ah nan nanu delluwaat suñu bopp loolu moo tax nag za alquran dañ koy jàngu loolu moo tax ñu mel noonu waaye bu ñu xamoon saar yi xool leen xale yu jigéen yi xam saar yi li ñuy tekki ndax gis ngeen leen foofu parce que ñu xam nañ seen mission du dem stade seen mission du du du màggal football seen mission màggal yàlla la tabaraka wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu waa jooju di leen woo ñi nga xam ne dañoo gëlëm saadiriin dañoo mandi ci àdduna gëlëm ci xamatuñ fu ñu jëm lu tax ndax fo waa ji di jéem a xippi seen bët yi muuru waa ji di leen jéem a xupp di leen jéem a génn ci àddina bi nga xam ne daf leen a njabar fa huwa yamuddu sawtahu ila ala aw ad ab ma yablug waa ji di yuuxu kàddoom fu mu toll naan leen alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqabir ay waay yéen nit ñi àdduna day moo leen yitteel dajale rek di jal dajale rek di jal waaw da ngay gis tey xoolal tukki tukki ñii nii fañ dem ñoom ba ñuy dem dañ demoon jàngi jaar ci yoon yu légal ut ay këyit xoolal tey ay nit ay gaal la ñuy dugg di dee te terewul de ñu ngi dem ba léegi bu junni nit demee téeméer bi yëgg ñeneen ñëpp dee ci àll bi ñooñu ñëpp lu ko waral waaw da ngay dégg rek ñu ne alal ju bari wala bàmmeel bu sori rek loolu mooy loolu mooy siaar bi quoi mooy siaar bi alal ju bari wala bàmmeel bu sori ñeneen ñi ne barsa wala barsak sum nga gis ku takku daan na yaay dara may amala rek wala ma dee loolu fu ñu ko du loolu ban diine la ah loolu ban diine la ngir am alal rek am alal alal jooju ngay dajale ji di uti loo koy dee boo demee ba am ko soo ne cëpp fii li ngay njëkk a xalaat mooy jënd kër gu rafet boo xam ne boo ko tabaxee ku romb xool indi oto bu rafet boo xam ne boo ko yëgee ku romb gis la waaw takk ay chaînes yu ngand comme xaj waaw dóor ay kap tourné ko nii bu dee jigéen mu xeesal ba gën a xonq-xonq changé kawar gi dóor ay cheveux indien monte xef monte wee monte kawar paccal ween yi waaw sol tubéy bu xat bu bon génne jumbax bi def ci benn jaaro waaw maanaam léegi ku ko gis ñu ne ndeysaan xool leen ko Europe la jóge Europe mais c'est vrai ni ngeen def ah ndeysaan dootul nekk jullit fekk nu mu tuddoon Aïcha léegi changé na tur bi Fatima la tuddoon léegi F F F yow kañ nga ñëw non hier bon je rentre hier bah je rentre de 22 heures bah ah dootul wax olof wee yi nekk toll nii ndeysaan loolu rek mooy sunu yitte àdduna loolu rek moo tax ñu uti alal du leneen maa déggoo fi kenn ne man dama bëgg a uti alal su ma ñëwee tabax jàkk su ma ñëwee tabax daara déedéet tiitaroontu rek li yàlla ne alhaakumu ta wallahi yàlla moo wax dëgg alhaakumu takaasur àddina rek moo leen yitteel alal di dajaley jal ngeen fàtte jalla jalaalu dina ñëw jël leen ñu yóbbu leen jal leen ñëw tas jali ngeen jaloon jaale leen yenn saa yi nit dina dajale alal ba yaakaar ne yàlla lu mu wax ci alxuraan ah yàlla mu ne waa ji dajale la bi yaxsabu anna maalahu da yaakaar ne alal ji bu malakal mawti ñëwee du dee rek malakal mawti xoolul alal fa kam ñaata ngeen gis fa kam min quburin tubna wa ma tubna fa kam min quburin fa kam min maridin udna wa ma udna fa kam min malikin rufiat lahu alamat fa lamma ala yàlla da lay bàyyi rek ngay dajale di daw rek di cëpp-cëppi di cëpp-cëppi rek yàlla nit nit bu muy jógee di tooñ yàlla yàlla mi ngi mel ne rek yaag sa baay wala yaag sa doom wala bi nga xale bi di cëpp-cëppi fii papa ji mën na jóg rek parce que mu daal di jeex waaye yàlla gaawatuwul ndax kenn ci ñun du rëcc amul kenn ci ñun wa ma antum bi mujizin du ci kaw suuf du ci asamaan du ci kaw suuf kenn du rëcc moo tax yàlla du yàkkam ci looloo tax sunu li nu nekkee nekk ci àddina di daw di dajale alal alal ju baax ak ju bon xoolal tey xale yu jigéen yi koo ci gis am na juróom-ñaar fukki góor yu lay seet si am na kuy ñëw samedi am na kuy ñëw dimanche am na kuy ñëw altine am na kuy ñëw talaata am na kuy ñëw alarba am na kuy ñëw alxamis am na kuy ñëw semaine bu nekk benn yoon ñoo ñëpp dañuy financé ñoo ñëw dañuy financé waaw ñi ay 10 000 ñi 15 000 ñi 25 000 ñi 50 000 ñi 100 000 ku nekk koo daje ci mbale ci mbedd mi da ngay dégg sax xale yu jigéen naan man de man da njaga njaay laa njaga njaay laa man ku ma dajal yàpp naa kon njaga njaay moom Dakar dem dikk moo ko ëpp doole kon ki daje ki nekk Dakar dem dikk nag man de man Dakar dem dikk laa ku ma dajeel yàpp maanaam mooy xale bu góor bu ma dajeel rek damay lekk sama ñaq bootaay waaw su ko defee am nañu ay waajur yoo xam ne ñu ngi ci kër yi ñoom it du ñu def la la Zakaria defoon ca Mariam keroog ba Zakaria duggee fekk Mariam di lekk fruits yoo xam ne waru koo lekk ci ci saison bii maanaam saison bii nu nekk dafa am fruits yi ñor saison yi bee di ñëw fruits di ñor saa yoo ñëwee nag saison bii nga fekk si fruits yi mis- misaal bi mango heure bi warul am ak yeneen i fruits yi moom bi mu ñëwee mu fekk Mariama di lekk lu mu warul lekk ci weer wi da ko ne yaa Mariamu anna laki haza foo jëlee lii ñun tey da ngay gis sa doom bu jigéen mu yor portable boo xam ne yow bi nga daam bi nga tàmbalee liggéey liggéey nga fanweeri at ba retraité mu munoo am portable buy yor 15000 nga gis sa doom yor bu 200000 te xam nga ne moom liggéeyagul élève la day jàng lu waroon ci yow loolu nga ne ko waaw soxna si foo jëlee lii waaye déedéet ah yow sa portable yi rafet na di boo amee beneen may ma mu ne la non problème papa boo ko jëlee nga ne ko non Jean moo fi jaar bàyyi ko fi Jean lu Jean lu tax mu bàyyi ko fi wala Mour lu tax mu bàyyi fi portable bi lu tax mu bàyyi ko fi Pla- point d'interrogation lu tax mu bàyyi ko fi mais kenn dootul lijjanti loolu léegi ndax sunu diine moo yàqu sunu diine lañ amul diine lañ amul dëgg dëgg dëgg dëgg bëgg yàlla moo dañ sunu xol yi yàlla ci boppam gisuñu ko tey adduna rek adduna rek moo nekk sunu kanam bu fekkee góor moo ñëw di la bëgg sax moom am na xaalis bi ne ah te maçon la yii nanu dimbali waaw nanu dimbali bu waa ji ñëwee nag oto bu kii ah te wax dëgg yàlla am nañ ci moom yaakaar de xamaguñu fu muy liggéey de waaye ni mu ñëwee wala loolu rek xaalis rek sunu àdduna yëpp xaalis li yàlla nag alhaakumu takaasu mu ne ayyuha saadiruun almaxmuuruun ayyuha laa'ihuun almutakassiruuna bil amwaal wal awlaad wal araad xanaa xamu leen ne yéen lii ngeen di dajal wa antum mufaariquuna bi e yéen ñi màndi ci àdduna e yéen ñi gëlëm e yéen ñi daw di toppatoo alal di takki jabar di juri doom di tabaxi kër di dajalay jal xanaa xamu leen ne lii lépp après dee bàyyi ko fi rek foog nga bàyyi ko fi rek dee dee rek lii ngay dajale yëpp xoolal armoire bi armoire bi mu ngi fees del si bata yenn saa yi nga gis jigéen ñu ne boo ma takkee double lii waa ji ne waaw mais si bata ne waaw ah canapé nangam yëpp waa ji ne waaw ñu daal di dem indi nga tëdd ci deux semaines daal di dee léegi nag après ndax lal bi dañ ko dañ koy yóbbaale arme armeel ya dañu yóbbaale alal bi ndeysaan dañu yóbbaale armoire bi dara lañ ci dul yóbbaale benn mbubb sax du génn ci armoire bi topp la biir bàmmeel benn mbubb bañ nañ ko ba ñun ñi toog fii ñëpp kenn solu ci yére armeel kuñ ko may sax la ilaha dama ko ragal de dama ko ragal ku génnoon fi léegi ñu ne la jàpp ko perkaal subhanallah yow lii la lay li yow kenn bëggu ko boo génnoon lii la ñu ne la jàpp perkaal juróom-ñaar yu weex tal ah yàlla nag ki la koy jox bu mu la xulli bët di nga ko jël la waaye boo koy jël di nga hésité di lox ah yow dem na dabaaroon ma rek waa ji daan may jox lii am jëlal nit jëlal après su laatu ko gis dañ ragal yàlla dañ xam ne danañ dee de wallahi sunu daw adduna bi yëpp sunu cëppi-cëppi yëpp danañ yem benn dof dafa romb armeel yi mun a ñaw dag day waɗi ɗo de awluɓe nanɗo wullannoɓe nanɗo ñu ne ko loolu mooy la dafa romb bàmmeel yi rek daan ne ñaw noppi ngeen de da ngeen daan jàng yuuxu rek bu ñu waxee ngeen di sara xolle ngeen nekk ci kër yi yuuxu mun a ñaw noppi ngeen de yéen ñëpp noppi ngeen waaw il faut ñu noppi ndax ki leen noppiloo moo leen noppiloo ko kum noppiloo nga noppi dama am benn élève ndeysaan benn mbokk buy ñëw das fan yi xale bu ndaw la bu ñëwee ci jumaa ji rek papa ji dóor ko da ngaa bëgg nekk ibaadu dinaa la rey doo nekk ibaadu papa ji di ko tere jàkk ji su ñëwee rek papa ji dóor ko ba mujj gi ndeysaan ma ne ko léegi xam nga nooy def da ngay nëbbatu ndeke papa ji dafa am ay espion li wër jumaa ji am na ñu fay liggéey ñooñu ñooy dem ne papa ji gis nañ ko fa ñëw na ba mujj gi man yërëm ko ma ne ko bul ñëwati mu ne ma bàyyil ma ñëw rek dañ ma dóor ba sonn dinaa ñëw ndax sama diine laa bëgg a xam semaine bee mu ñëw na sama papa di def feebar waaye nee na ma bu wéree dina ma génne dëkk bi ñaanal moom wañ maa yóbbu ban buñ ma génnee léegi dootuma julli si dootuma jàngati te xam naa ne ci àll bi lañ ma yóbbu foofu amul diine ne ñaanal ma man ko amuñu rek ma toog une semaine gisuma ko ñu julli vendredi bi passé ma gestu rek gis ko ci ginnaaw nit ñi ma ñëw nuyu ko mu sëgg ma ne ko lan la ana sa papa mu ngi tane mu ne ma sama papa génn àdduna la ilaha illallah
waaw papa ji danoon bu ma wéree génne la dëkk bi moom papa ji yàlla ne ko dinaa la génne dëkk bi balaa nga koy génne dëkk bi moom di nga xam ne doo borom dëkk bi man yàlla maay borom dëkk bi bu ma wéree génne la dëkk bi yàlla ne ko yow balaa ngay wér yow ma génne la dëkk bi ndax moom moo dëkk bi dëkk bi maa ko moom dëkk bii di àdduna man yàlla maa ko moom ku ma neex ma génne la fi te ku ma fi génne dootoo fi dugaat yàlla génne ko dëkk bi te noonu moo génne moo wéree génne la dëkk bi yàlla xamal ko ne moom moo dëkk bi tey la mujj ñëw sama kër ne ma tey la ñuy miraas nañ leen ragal yàlla nan bàyyi suñu caaxaan yi nu nekke nan leen dëpp dellu suñu boroom bàyyi col gu bon gi bàyyi suñu kawar yi ñuy yokk bàyyi xef yi ñuy monte yow mi monte xef monte ay we monte kawar monte ay ween monte ay ange lu ne nga monte bu la yàlla nee casin nga dee ñu la ci morgue bi yooyu nga monte woon nuñ koy def dañ koy dindi ba mu set wala noonu lañ lay yóbbee ci yàlla te nag ndeysaan xam nga lu ci garaaw mooy buñ ko dindee ba pare boo duggee bàmmeel ñu poosewaat ko ci ndax yubu as kullu abdin ala ma maata alayhi ku nekk ni nga deewee noonu ngay dekkee wallahi azim dañ ragal yàlla de gis nga àdduna bi neex na nag mën ngaa def lu la neex defal lu la neex su la neexee nga dangiiral waxal yaa tey defal waaye ba nga dee billaay boo ci dee di nga réccu di nga ne yaa layta nii kuntu turaba nit day dee dekk di tibb ci suuf si naan ak a neexoon ma nekk suuf jaamuloon yàlla ixwaan yi waa ji fàttali ñu alquran fàttali ñu nañu yéen ñi nga xam ne fokat ngeen caaxaankat dajale alal moo tax ngeen jóg wal araad alxayaat yëg leen ne wa antum mufaariquun xam leen ne lii ngeen yor di ko dajale di ngeen tàqalikoog moom ayuha almaxduun bima antum fii amma yali ayuha altaarikuun ma tatakaasaruuna fii wa tatafaaxaruun ila xufratin dayiqa la tatakaasaru fiha wala tatafaaxar mu ne yéen ñi màndi ci àdduna yéen ñi àdduna wor yéen ñi àddina jay yéen ñi nga xam ne yéen a ngi dajale di jal bis a ngi ñëw di ngeen fi bàyyi lépp lu ngeen dajaloon yéen ñi doon ngand ngandul di seen dënn bis a ngi ñëw seen loxo yi dootul laal seen dënn yi na ngeen yëg ne dinañ leen wàcce ci seen néeg yi wàcce leen lal yi yóbbu leen ci armeel yi gas pax ba mu xóot ne la ci tëmb dootoo ngand ngandulu dootoo wut alal ju bari waaw ndeysaan mu ne tazakkaru تذكروا تذكروا تذكروا دائما الموت وحازم اللذات ومروا على القبور واعلموا أنها ستكون لكم مساكن كما سكنها من كان قبلكم سوف تنقلون عن فسيح الدار وتدخلون القبور وهو أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده ينجه ومن لم ينج منه فما بعده أشد mu ne fàttaliku leen dee yëg leen ne dinañ leen génne ci kër yi yaatu yi yow leen ci bàmmeel yu xat yee mu nekk première kër ci këru àllaaxira yi ku rëcc bàmmeel da ngay rëcc ginnaaw bàmmeel ku ñu mbugal bàmmeel mbugal la ci ginnaaw bàmmeel mbokk yi nanu yëg ne bàmmeel ba buñ ci dugalee amatul fëgg dënn amatul maayi doomu diw amatul man la diw amatul indi leen ma yére sàngam indi leen ma diwu sàngam amatul biir bàmmeel am amatul ana sama alal ji amatul biir bàmmeel de est-ce que gis ngeen ni ñuy yóbbee nit bàmmeel bu la dugalee ci morgue bi ba sàng la ba pare witteen la ñuy jël saañ nopp yi saañ bët yeeg bakkan yeeg gémmiñ gi après laxas la ci perkaal bi ba mu daj daal di lay yeew ba nga dëgër daal di yóbbu ci biir bàmmeel bi gas ba mu xóot daal lay dugal daal di suul ana alal ji mu ngi ca kër ga ndeysaan xale bi xale bi tey mu ne ma ma ne ko sa papa lan la bàyyi mu ne sama papa bàyyi woon na ay xar waaye rey nañ benn xar bi de ci dëj ba lekk ko gis nga gis nga nit ñi gis nga nit ñi gis nga nit ñi ñoom lekk rek billaahi mu ne ma ñaari xar waaye rey nañ xar mu ngand mi nee nañ moom lañ koy dëjee rey nañ ko ba lekk ko gis nga lekk rek léegi ana paa bi moom dem na ci yàlla lu mu yóbbaale bàyyi na lépp ngay bàyyi jëkkër wala nga bàyyi jabar wala nga bàyyi jëkkër wala nga bàyyi jabar bàyyi ay doom bàyyi kër bàyyi lépp lépp ngay bàyyi montre bi sax dañ koy tekki tekki jaaro bi teg moomatoo ci dara yéen saa yi sax ñu dem bay suul nga dégg ku ne asalaamaaleykum sama yaay gémmiñ ngi amoon na bu ñu war de wala sama pap ñu ne eh xaar leen ñu daal di dindiwaan mbalaan bi daal di ŋaang gémmiñ gi buddi bëñ bi génne ko moo moo ko doo ko yóbbu billaahi moo moo ko xanaa lenn day moo tax nga yóbbu ko mënta deñ ñu xëcc xëcc dañut ñu bañ laa gaañ wala bañ a yàgg ñu bàyyi la nga yóbbaale ko waaye bu ñu nee nii mu deñ rek ñu te ah moomu ko de indi leen dana yow na ñëw kay buy dee na dee moom rek kay dara du dem da ngay dégg sax ndeysaan nit ñi ci ni ñu bañee dee ak ni leen dee sonale ndax boo dee kër gi day am problème dañuy dee kii moo lakkale ne deewu dëju timis xam ngeen ku dee timis lu muy tere waa kër gi te leen di tere reer ku dee timis waa kër gi du ñu reer ndey ñu ne kii moo lakkale comme kuy dee timis reerul tere nit ñi reer waaw wala am nga bu nit deewee ci këram rek nit ñi dañuy daw gaawantu génne la génne la génne la kër gi kenn du nangu nga nekk ci biir néeg bi xoolal soxna si dund ngeen ñaata at juróom fukki at nga dee tey rek mu yuux nit ñi ñëw mun a yóbbu leen ko man du ma fi fanaan de du fanaan de yi daal lay génne yóbbu la ndeysaan moom kese mu tëdd ci biir néeg bi wala nit ñi daal di ñëw wala ñu yóbbu ko ci saal ba ndeysaan moo ngi nit ñu fanaan waaye doo fanaan ci kër gi de naka noonu ku góor ki tamit bu ko jigéen ki dee day génne rek yóbbu jàkka ja ñëw ñetti fan dem takk keneen indi yan nañ leen góorgóorlu dañu jaar àdduna rek dëkkuñu fi àllaaxira lañ jëm fii dañ fay romb ndeysaan dama am benn cheikh bu nekk madinatu munawar abu talha la ma ziyaare ko ren bi ma demee maag mu recevoir ma ci madina ndeysaan ci jumaay yonent bi ma ñëw mu jox ma profilam facebook ma ñibbisi daal di ubbi rek ma gis mu bind abu talha al musafir ila daari al axira loolu la bind ci page facebook am ndeysaan abu talha al musafir ila daari al axira ndeysaan xoolal ñooñu dañu xam ne mbokk yi ñun dañuy tukki alaxira lañ jëm fii dañ fi romb rek gis nga yëre yeeg alal yeeg yu ndaw ndawaan yi maanaam dañ koy def pour suturlu pour mun a jaamu yàlla waaye nag waruñ ci ëppal waruñu baare suñu digganteeg suñu borom taaru àdduna bi yenn saa yi yi nit ñi def yu bon yu xaraam yi bu mu la jay ba nga yaakaar ne doo dem ci yàlla bu dee yëre dinañ ko simmi bu dee takkaay dinañ ko tekki bu dee létt danañ ko firi bu dee lal danañ la ko wàcce bu dee néeg danañ la ko génne bu dee kër danañ la ko génne bu dee oto danañ la ko wàcce dañ gas bu mu xóot dugal la wallahi dootoo génnaan loolu nañ ko bàyyi xel bu nu àdduna jay dañ dem suñu borom mbokk yi saar bi day fëgg xol saar bi day delloo nit ñi ci yàlla ndax borom bi tabaraka wa taala moo fëgg xol yi nekk allah soofa taalamun giñ naa ne di ngeen xam su yàlla ne kon ne dinañ xam kon war nañ xam ne dinañ xam waaw mu ne hada hada al iqa bil alfaz wa jarasihi rahib summa kalla sawfa taalamuun sunu borom subhanahu wa taala dafa bëgg ñu góorgóorlu xam ne bu ñu jàppee ci alquran dinañu delloo ci yàlla tabaraka wa taala dina fëgg sunuy xol dinañu delloo su ko defee ñu xam ne borom bi tabaraka wa taala moom li mu ñu sant rek moom mooy dëgg leneen lu dul loolu du dara mbokk julit yi saar bi dafay tax buñ ko jàngee ñu dellu ci suñu borom buñ bàyyee xel ñu xam lu ci nekk suñ buggee xam lu ci nekk nag suñ jógee ku nekk ci ñun dafay dem mu góorgóorlu ci pour bu déggee alquran mu xam lu muy tekki loolu nag loo koy mëne mooy nga jàng summa yaksif hadihi alhaqiqa al matwiya ar rahib la tarabunna al jahim xoolal buur bu toll na yàlla bu ñu nee di ngeen gis safara di ngeen ko gis kenn ku nekk ci fi nga toog war ngaa imaginer waa safara moom lan la war a mel wala gaz bu ndaw bii rek wala këriñ gi ñu jënd rek taal teg brin almet sax moo gën a tuuti brin almet moo gën a tuuti ci safara lu ñuy taal soo ne woon benn waay kaay ma taal brin almet ma tiimale ko sa nopp ba brin bi jeex ma jox la milliard lu waa ji wax kan moo ko nangu fii ci ñun kenn ci ñun nanguwul loolu kon nag bu nu àdduna jaay li ñu indi woon bëri na trop waaye comme dañoo guddee dañ tënk fii bàyyi mbokk yi incha allah participer ci bàyyi bàyyi imam bari ak mbokk jullit yi nga xam ne ñoo fi toog nañu xam ne daal saar bi du saar bu ndaw mën na ndaw ci ay aayam mën na ndaw bokk ci saar yu ndaw yi waaye saar bi rey nay doomi aadama saar bi yëngal na ay nit saar bi gëzëm na adduna ndax yàlla tabaraka wa taala ni mu ko waxee borom bi nee nañ danañ gis safara borom bi nee nañ danañ ci teg suñu bët borom bi nee na lenn ci ñun dana leen ci dugal borom bi ba lu mu tëjee saar bi mooy xéewal yi leen yàlla defal dinaa leen ko laaj lan moo gën a rëy xéewalu xéewalu wér gis nga kii gis moom moo xam xéewalu bët kii dégg moom moo xam xéewalu nopp kii noyyi moo xam xéewalu bakkan kii wax moo xam xéewalu gémmiñ aleykum salaam ku nekk ci ñun xéewal yi pour nga xam ko mooy foog nga dund ko xéewal yi lekk ki ko xam mooy ki ko am ki xam xéewalu naan mooy ki naan naan bi daal di màndi dafa am benn góor yàgg naa ko nettali mbokk yi dafa dund juróom ñett fukki at benn bis rek mu xëy mënul dem wanag mënul tuur ndox comme borom alal la doom yi ay borom alal lañ mu woo leen ñu ñoom ñëpp ñoo ñëw yóbbu ko ci benn hôpital bi gën a cher ci hôpital yi àddina bi boole koog docteur yi gën a rëy ñu faj ko ci ay secondes yu ndaw ñu faj ko mu mën a dem wanag fi doon metti li ko doon dal yëpp def dañ docteur yi woo xale yi ne leen seen papa tane na wér na ñoom ñoom ñu ñëw ndeysaan génne seeni chèque dama ay borom alal lañ ñuy remercier docteur yi di leen bindal chèque di leen may xaalis ñu xool rek gis góor gi fi mu tëdd ci lalu hôpital bi muy jooy ñu ne ah ñu ngi jooy de tanewul ñu ñëw ñoom ñëpp wër ko ñu ne ko papa xanaa tane woo mu ne tane naa koy wér naa ñu ne looy jooy nag mu ne ñaata at la am ñu ne juróom-ñett fukki at mu ne juróom-ñett fukki at yi ndax gis ngeen ma fi ma dem hôpital ñu ne déedéet xanaa tey mu ne waaw lu tax yàlla mi ma may juróom-ñett fukki at may dund mu defal ma lépp lu ne gaañ yi yéen sant leen ko docteur yi dimbali ma tey rek ngeen leen di gërëm di leen sant mu ne juróom-ñett fukki at may dem wanag may tuur ndox est-ce que yéen sant ngeen yàlla ñu ne déedéet mu ne lu tax tey docteur yi dimbali ma ma tuur ndox benn fan rek benn minute rek yéen ñim ngeen leen di gërëm mbokk yi ñun ñii ba ñu juddoo ba léegi ñuy xool ana kan ci ñun bëtam yi muy xoolee moo ci sant yàlla ci li muy xool kan ci ñun moo julli ñaar raaka na yàlla ñaari bët yi maa ngi la koy sante nopp yi maa ngi la koy gërëme bakkan bi gémmiñ gi loxo yi tànk yi biir bi am am bi soxna si jëkkër ji njaboot gi kër gi oto bi fas wi kan ci ñun moo sant yàlla ci loolu yëpp yàlla may ko kan mu julli ñaar raaka ne yàlla maa ngi lay gërëm ci loolu bu nax suñu bopp bu nax suñu bopp bu nax suñu bopp asalaamualeykum wa rahmatullah
alhamdulilah ñu ngi dellu santaat borom bi subhanahu wa taala yaakaar naa lu ustaz wax amul lenn lenn lenn li ci war a mën a yokk Euh, doon naa mbébét même li ma ci war a yokk temps bi ma joxaat la ko nga continuer incha allah donc euh, di ko ñaanal yal na yàlla barkeel ko barkeel njabootam amiin amiin te wax dëgg yàlla salafu saalix dañ doon wax naan euh, gis des fois yenn ci nit yàlla yi wala yenn ci mooy ca saxaabatul kiram gis leen rek da leen di yokk ngëm Euh, te wax ji ñuy wax yàlla rek moo ko seede mooy wallahi nuhibbuhu fillah wallaay bala ahabaka allah kama ahbabtana comme ni nga ko waxee effectivement ahabaka allah kama maag sama soxna ñoo ñëw ak euh, sama mag ak yooyu sama soxna ku tuub la mu ngi fële tubaabu tuub la ndeysaan yàlla may nañu ñetti doom alhamdulilah alhamdulillah Euh, moom moomu fële ñu nekk jigéen ñi ku ci gaañu ñoom ñooy ñoom ñooy dox ngir sàng néew ak yu mel noonu ndeysaan wax dëgg yàlla lu ustaaz wax ñu ngi foofu nit ñi jox ñu ay cër bu baax alhamdulilah jazakumullah xayr waaye lépp nag luñ ci mën a def lu ne tey ñoom yàlla jaaral na ko ci ñoom ndax ñoom ñoo ñu formé man dama koy wax di ko seedeeloo borom subhanahu wa taala jazakumullah xayr man sëybu li bokk na ci ñu ma formé tey Barakallah.
su ma toogee di wax nit ñi di dégg wala boog ñu naan waxtaan bi macha allah ba tax na tey bu ngeen demee ci youtube su ngeen defee imam Mouhamed Bari di ngeen fa gis samay xutba ak samay conférence ñu def fële waaye loolu lépp di ko delloo di seede ni Barakallah.
ñun tey kii moom moo ñu formé Jazakallah.
Amin waroon na ñëw waaye ndeysaan ndeysaan dafa dafa bougé moom moo tax ak yeneen mbokk ak yeneen ñun ba ñuy gën a tuuti di topp seen ginnaaw donc ñi dañ leen di ñaanal yàlla jazakumullah di leen ñaanal yàlla na yàlla fay leen ni ñu leen nag xamee woon ba léegi noonu lañ leen xamee wallahi dama ñibbis tey sama koñ li ma njëkk a def oustaz def nañ fa lu mat ñaari conférence ba suba am nañ beneen conférence insha allah ah, am nañ ah, samedi am nañ conférence dimanche dama ne gars yi li fi amoon liñ fi bàyyi ñun gisatuñ ko ndeysaan mooy toog tuur yi faw muy am faw nit ñi di delluwaat ci yàlla ñu leen di fàttali ndax nit ñi réer nañ lenn rek laay ci mujjee mooy xasanul basri da doon wax naan yab na aadam Mhm.
yow doomu aadama na yab na aadam yow mi di doomu aadama muy ko góor ak ku jigéen yab na aadam wulit te wax dak Mhm.
juddu nga yow rek yaa ñëw ba ñuy ñëw kenn àndaalewul dara ci naa min xeeri shay dañoo ñëw rek àndaalewuñu amuñu mu ne ji ta mu ne wulit te wax dak ne wasa tamuutu wax dak di nga dee te yow rek tamit yaay dee yow rek yaay dem wasa tuqbaru wax dak dinañ la suul sa bàmmeel yow kese wasa tusal wax dak dinañ la laaj te di nga tontu yow rek wasa tuxshar wax dak te dinañ la dekki yow di nga tontu wasa tamuru ala siraat wax dak di nga romb fon siraat waaye yow kese yaa romb bàyyi du fa nekk yaay du fa nekk sëriñ du fa nekk taalibi du fa nekk kenn du fa nekk yow rek yàlla nee na laqad jiktumuna furada mbokk yi moo tax nit yàlla yi waaye benn nit yàlla ci laay mujjee ci mu ne ñu ngi koy tuddee nit ñi sax xamuñu turam ñu ci bari dañoo réere turam nan lañ ko tuddee mooy ashahid
ndeysaan ashahid dañ ko woowe mooy koo xam dafa dee ci yoon yoon yàlla ashahidu shahidul xawf min allah Allah.
koo xam ne dafa dee ndax ragal yàlla moo fa rey dafa toog mu ne muy jug mu ngi am lu mot 60 ans 60 ans la am mu toog këram mu ne ñaataat laa am ñu ne ko am nga 60 ans ndeysaan mu ne 60 ans dund naa ko bés bu nekk at bi mën nañ ko suñ ko jëlee mille pee ko dinañu jox 360 jours mooy benn at nee na donc 360 jours buñ ko multiplier par 60 yi ma am muy 21000 et quelques 21000 et quelques presque 22000 nee na chaque jour lu mu néew néew am naa ci benn bàkkaar lu mu néew néew mooy naa yàlla benn yoon nee na am naa donc 21000 bàkkaar yoo xam ne dinaa ko layoog yàlla te kenn du intervenir sëriñ du ñëw kenn du ñëw man rek maay tontu yàlla ci 21000 bàkkaar fa muy paree fa la daanoo dee donc ñun ñaata bàkkaar lañu am ñaata bàkkaar lañu am ci ay bët nu ko oustaz waxee ci ay nopp nañu dellu sant yàlla nañu dellu tuubaat dellu ci yàlla ku nekk xam boppam nag ku nekk xam boppam waaye li ñu war mooy tuub dellu ci yàlla te dem jàng incha allah dellu ci sëriñ yu daal ñuy jàppale en tout cas yal na yàlla sàmm waa kër gi sàmm bopp yëpp yal na yàlla fay suñu mbokk yi yàlla mi nga xam ne moom moo doxaat lii fàttaliwaay ñu lu bari yal na yàlla fay dem jazakumullah xayran donc incha allah oustaz xaw ma ndax day am ay question wala waaye liñ fi jot a dégg daal jëfe rek moom moo ci tegu incha allah di delloowaat kàddu gi oustaz